njëkk wane mooy alal ji libane yi ak ñeneen homme d'affaires di sàcc réew mi kenn xamul nu mu toll xam nga Ousmane Sonko dafa mos a ñëw sama bureau yërim pos ñuy waxtaan ñuy waxtaan ma ne ko mais yow li ngay li ngay li ngay digge est ce que mën nga ko def est ce que booy li ngay digge dafa laaj xaalis bu bari mu ni ma dinaa la wax benn affaire mu ne ma li may diggee yépp soxlawuñu benn xaalisu bitim réew pour def ko di ko soxlawu na xaalis bi mooy lan mënuma li ñuy sàcc rek ci réew mi ci lempo rek. mën na finance mu ne ma li ñuy sàcc rek ci réew mi maanaam loo waroon loo xam dafa doon dugg ci keesu réew mi ci lempo ñu koy sàcc rek mu ne loo rek déjà boo ko jëloon di nga mën a régler problème yu bari ci Sénégal. mën na financer un plan de développement. te doo soxla xaalisu bitim réew. gis nga bi ma ko bi ma Ousmane Sonko waxan loolu da maa ngi doon douter mais affaire bii laa xam ne li wax dëgg la parce que imagine-toi euh, benn jour gendarmerie def perquisition trouvé ci ay libanais parce que dañuy 650 millions du 550 millions tey damay def révélation fii xam nga xaalis bi ñaata la. 4 hmm. milliards la. 4 milliards du 650 millions. dañu jël 4 milliards. ñu intervenir ci kaw ñu jox leen lépp ba mu des 600 millions ñu jël 600 millions yu consigné ko parce que xam xaalis ba mënuñu koon joxe mais 4 milliards lañ tourné ci ñoom dégg nga baax li ma wax loolu dinaa ci ñëw sax ci yërëm parce que dama ciy bind 4 milliards en 4 milliards liquide c'est-à-dire bi gendarmerie demee def descente ci ñaari boutique yooyu 4 milliards lañ fa fekk argent liquide dañu commencé di ko compter euh, tisbar ba guddi mujj ñu dem jël jigéen joo xam ne ni ci benn banque lay liggéeyee parce que ñi ko doon compter ay gendarme la dafa yeexoon ñu dem jëli benn jigéen buy liggéey ci benn banque pour mu ñëw compter leen ko. te xaalis la boo xam ne duñu ko retracé ci comptabilité. benn caisse noire la liquide la. dégg nga wax bi ci benn libanais benn famille libanais benn jour. waa léegi ñi fi nekk muy tubaab yeeg libanais ak yeneen sénégal yeeg yooyu mais ñaata xaalis la ñuy sàcc réew mi par jour. même mu ne c'est extrêmement grave c'est-à-dire imagine-toi somme d'argent nga koy gagner ci rew lepp nga koy jël diko def liquide feeñul ci ben comptabilité lepp ñu jël ko ci même jour ñi def ñoñu kon ne di dox tranquillement et puis wa déglu déglu da xare ak wax la parce que il faut sénégalais yi xam lan motax affaire bi grave parce que ñen sax mëna japp mais Cheikh Yérim Seck lu tax muy wax ci li lenn rek tax c'est-à-dire li ci état sénégalais di ñak ci sacc xaalis rew mu mel ni nga xamné ne école yu baax tay éducation nationale li tax ñu gëna yok pous pous jang bi xam nga lan la. ñak moyen. dédé du ñak moyen de tay bo ubbi woon léegi nawet bi école yi abdi provisoire la fay taw kenn mënu fa jang da nga wax bi ay nit benn jour ñu lay fekk ñom 4 milliards yu sacc yo xamni benn Sénégal du ci am benn dërëmu lemp benn jour benn commerçant en fait benn entreprise benn groupe muy groupe Farez nga xamni moy mooy Mohamed Farez Hassan Farès Mehi Eldin Farès nga xam ñoo Mom Kirène moom Presea def fer à et cetera léegi ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di def business di sàcc xaalis bu toll noonu état bi du ci teg loxo du ci def dara pendant ce temps nit ñi amuñu école lu ñuy jàngee bu ñu demee ci hôpitaux yi da ngay gis sénégalais buy dee ndax 10 000 francs parce que amul lu mu jënde chloroquine parce que dafa palidisme maanaam dafa sibiru mu faatu waaye léegi loolu duñ ci wax ci réew mi léegi ñun journaliste bu ñu waxul ci loolu lan lañu war a wax. ku ci wax ñu ne dañ laa jënd. ñun dañ laa jënd mais man bu ñu doon jënd xëy ñeneen ñoo yor ñeneen kay ñoo yor xaalis bi jënd ñëpp ba kenn mënta wax jënd ñëpp bañ leen jël leen ak bu toll noonu ñoom ñëpp ñu kon di dox ñu jël benn doomu jigéenu jàmbur bu ndaw tëj ko kaso ni dafa jël. cent vingt-six millions da ndaw si moo tax ndaw si moo tax ñu xam yëf yi parce que dañ ko jël ne ko da sàcc téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom benn man sama yoon ci moom parce que man défendre ma kenn ci dossier bi mais bu dul woon moom kenn du xam luubal yi nga xam ni famille Fares lañ fi def ndaw si biñ ko jàppee mun leen déedéet yëf yi demewul noonu ñii dañuy jël xaalis bi di ko yóbbu bis bu ne dañuy compter xaalis bi gars yi ni ko ana say preuve mu indi ay preuve am indi carnet wane xaalis bi génn yépp ñu compter ci carnet bi ci li mu bind rek ñu gis ni 2 milliards 800 directeur société bi ki nga xam ne moo tudd. Christian Samra Christian Samra jël na ko ci.

nga ni kii nañ ko jàpp ba pare te yóbboo ko ci juge bi ko war a jàpp xam nga loolu yabaate la après ñu jàpp ñu jël ndaw si ñu jël ndaw si tëj ko kaso xam nga sénégal xam nga yooyu vraiment yooyu kum révolté wul honnêtement pour man amoo benn sens de la justice parce que dafa yomb trop famille fare jor xaalis bi di corrompre nit ñi justice beeg ñëpp nërmeelu gars yi gis fee yu grave nii fisc beeg mais attends le minimum le minimum pour man xaalis bu mel nii nga jàppee ko ci nit liquide loo xam ne xaalis bu ñu doon sàcc la mais le minimum nga ubbi procédure pour redresser entreprise bi quand même au moins même bu dul dara sax 4 milliards yi ñu jàpp mais redresser ko ci loolu même bu fekkee nag sax benn yoon boobu lañ ko xam nga déjà wóor na ne mos ko def benn yoon parce que courtier bi yóbbu xaalis bi nga xam ne def na 15 ans bati plus dañ ko enquête mu ne ay année ngi nii chaque jour mu yóbbu xaalis bi waa léegi le minimum. te xaalis amul comptabilité. amul compta amul comptabilité dañuy jël tuuti def ko ci. jël bi ëpp ci xaalis bi jaare ko ci surcoût yooyu xam nga la moo tax américain yi defal ndànk bala may agsi ci américain yi léegi yow nga ni yow nga ni justice moo la tax a jóg nit ki def loolu parce que kii sax xam nga ndaw si dañ koo tuumaal. mu ni jëluma xaw ma moo jël xaw ma jël loolu yàlla la mais koo xam ne dafa ni man maa jël mais dama ko def ci dépense exceptionnelle kooku kon ne di dox maanaam ñi nga xam ne ñoo moom société bi muy Mohamed Farez Assane Farez den Farez continue di dox ñoom ñëpp nga bàyyi leen jëm jël kii tëj ko kaso fisc bi taxaw gis loolu xam ni lii xaalis la boo xam ne xaalis bu ñu sàcc na parce que xaalis bu bu doon bu doon xaalis bu ñu luubal dañ koy dugal ci comptabilité société bi mu am ay acte ñoom defuñu kii pour redresser leen pour au moins xool lan la ci état bi moom ak la ci état bi moomul n'est-ce pas ñu pare ci loolu lépp lépp lépp famille boobu dafa am kenn ku ci bokk ku tudd abbas fawas koo xam ne américain yi enquête nañ ko ba gis ni dafa bokk ci ñi nga xam ne nii ñooy alal sénégal di ko yóbbul benn nit bu tudd asan nasrala nga xam ne moo jiite hezbollah hezbollah libanais kooku trésor américain nañ ko fiché Amérique fiché ko ñoom seen famille ñu ci bari sax mënuñoo tukki seen famille bépp toute la famille fare ñi ci mën a tukki ñu tuuti lañ américain yi bi ñu déggee xaalis boobu am dépêché benn agent FBI mu ñëw pour loolu parce que xam nga loolu da ngay tiit déjà ñii ñu ngi leen di dem dëmm ñuy soccee yoolu yeele liir yeele liir lu lañ koy waxe donc américain bi ñëw def enquête de près enquête boobu nag li ci gën a garaaw loolu presse bi waxaguñ ko au fait parce que dafa am ay écoute satellitaire au fait xam nga nit ñi dañu yaakaar ni tant que ñu ngi wax wax ceeb rek kenn dégluwu leen mm-hmm. américain yi dossier bi dafa sérieux ci ñoom ba nga xam ni ay écoute satellitaire lañ def xam ku nekk li nga def am ay autorité Sénégal fii yoo xam ni ils sont impliqués pare daf leen nag impliqué corrompre leen yaa ngi dégg américain yi am ay preuve atte ko te boo moytuwul di nga toog fii Amérique décerné ñetti mandat d'arrêt international contre trois autorités du Sénégal loolu ma la koy wax tay ñetti mandat d'arrêt international c'est-à-dire problème bi bu réglé wul ba Sénégal léral ko situé responsabilité ñi wara a sanctionné ñu sanctionné leen loolu bu amul Amérique dina délivrer trois mandats d'arrêt internationaux yoo xam ni trois autorités sénégalaises yu am importance lay ciblé. te loolu te loolu may mun a nekkul suñu ginnaaw suñu kanam la nekk parce que li gëna a énervé américain yi moy saisir nañ les autorités sénégalaises mais ñom ñu ngi nëpp nëppal affaire bi di wéy di di di di di protéger euh, les mises en cause dans cette affaire là dafa am ñaari affaire yoo xam ça ils l'ont peu goûté dafa am ñaari affaire yo xamné bu ko Sénégal Sénégal réglé wul dina am problème yu grave ak États-Unis bu njëkk bi moy Christian Sambra bu ko état Sénégal poursuivre tëj ko kaso moom ak ñi ñi impliqué ci trafic bépp maanaam moom ak famille Fares bi benn bu ko Sénégal deful deuxièmement xaalis boobu ñu jàpp bu Sénégal retracé wul xaalis bi nga xam ni famille Fares yëpp mi ngi koy luubal ñaari yooyu bu ko Sénégal deful dina problème grave États-Unis parce que nous, ñu euh, mën nañu ci liste noire pays yi nga blanchiment pour le terrorisme ak euh, ah. finance ak financement terrorisme Et ça les Américains ne blâment pas non non non loolu mooy affaire problème bi foofu toll Légui une ban conclusion lañ ci mëna a mais mais bala ngay tiré conclusion. Ah. il paraît que même ci dossier bi dem nañ ba gis si euh, dañuy falsifier signature signature ministre des ah, finances pour ay exonération té ah. lool ñu ngi koy def avec la complicité euh, de de de sénégalais euh, yu nekk ci administration bi. mais ñi doon jël ci xaalis bi ñëpp mais c'est des grandes autorités de l'administration ndaw si feuille yim mu joxe. mais ay kilifa yu mag lañ. yu nekk fu ne waaw. parce que xam nga da ñëw jël si xaalis bi si ñëwlu la fenn mais gars il faut ñu bind fenn ni kii moo jël temps parce que après il faut faire une comptabilité. parce que ndaw si moo doon def comptabilité mais ñoom dañ ko waxoon ne. Euh, comptabilité bi journalière la bu paree na ko xotti ndekete ndaw si pour se protéger. moom mu ngi doon garder li nga xam ne moom mooy preuve yi. noonu la demee mais kaye bi mais may mun a boo gisee reçu yi sa àdduna day tukki. te àdduna day tukki c'est-à-dire boo gisee autorité yi impliqué wu ci loolu ak ñi ñu jox xaalis ak fi ñu nekk yépp ci ci ci ci ci nguur gi mais c'est c'est c'est man mosuma gis lu garaaw noonu mais euh, beneen problème bi mooy euh, cabinet bi nga xam ne ministre de la justice moo ko moomoon moom mooy defendre famille ministre de justice moom affaire bi da cee takk rip loolu moom bu déglu la baax li ma la d'abord amul kenn ku bokk ci dossier bi muy avocat muy parti boo xam ni da nga koy wax te du ni ministre de la justice moo nekk ci këru dossier bi amul. amul cabinet bi mu nekkoon kër cabinet bi mu nekkoon mooy défendre famille Farès son propre cabinet da nga wax bi en même temps dossier bi amul dara lu c'est-à-dire amul dara lu avancé loo xam ni c'est maanaam cabinet boobu lu mu bëgg ci dossier bi mooy am. ñële lu ñu demande ñu rejeté ko. parce que la filiation dafa naan ñële lu ñu demandé ñu ñu rejeté ko. bañ rejeté demande de liberté provisoire. pour la deuxième fois bi nag lu ñu demande ñu jox leen ko. mais sëñ soxna si nag loolu vraiment war naa tey xel nag dañu yow ñu ngi lay jiiñ yow yaay influencé dossier bi yow ministre ñu ngi lay jiiñ na la yow yaay influencé yow yaay wax ak juge des juge d'instruction ci liñ mën a wax bokk ci ñu koy jiiñ ba pare yow sa cabinet di gérer dossier bi ba pare sa cabinet boobu luñ demandé ñu jox leen ko ñeneen ñi lu luñ demandé ñu bañ soxna si loolu loolu loolu teyul xel loolu tey na xel de. mais nga yaakaar ndax lii yëpp euh, président mën na ko euh, ñàkk xam ak euh, taxawaayu ministre la justice parce que bi mu ñëwee ci justice bi ba tey nekkoon avocat yor ñëw yor cabinet ñëw hérité de ce de ce ministère la nga yaakaar lii yëpp président umpale na ko. man gëw ma ni mën na xew ci réew lu président de la république di umpale man gëw ba loolu. wala loolu bu mënee am ci réew mooy réew moom moom bakkanam mu ngi ci xott bu mënee am ci Sénégal loo xam ni mën na xew ak moyen yi état bi am yépp ci renseignement ci contre-espionnage ak un président de la république dafa rek yamul ci renseignement bi parce que ni ko renseignement intérieur yi maanaam ni ko service secret yi Sénégal di informer japp nan non la ko Emmanuel Macron di informer non la ko Mohamed Sis di informer non la ko Donald Trump di informer donc président de la République dafa am capacité xam lu ne donc bu fekkee ne xawna ci réew mi lu président xamul lolu bis buñu démé ba japp ni amna jappal ni ñun Sénégalais suñu bakkan mi ngi ci xott parce que ce ministre de la justice là c'est un problème hein c'est un ministre à problème. man mais dossier bi Je na alors conclusion